ñenn ñi di jaay doole ay nit ñu fekk ci seen suuf te naan day liggéey moo tax yenn ci ay promoteur yi ut ay ngemb ay nit di leen ngemb ñuy nekk ci réseau sociaux yi di saaga nit yi dañoo xamul li xew ki nga naan moo la jox suuf segam kooka moo feesul bëtu buñ ko waree recadrer ñu recadrer ko ci mu bàyyi suufu baykat yi saka boo nekkee ku juddoo faneen dem ci benn localité di intimider baykat yi te naan promoteur la te naan dama indaale sama xaalis wala dama leb ci banque yi kenn leb loowu la ni ngeen bëgg a def ñu dëkk ci village ak seeni ay suuf du jàll benn yoon parce que sañ-sañ bi nga am ak xemmeem teef gi nga am pour liggéey moom la ki nekk ci village bi xemmeem te sañ-sañ boobu la am moom itam pour liggéey sañ-sañ boobu la am pour am ay fore ak àll bu muy def élevage ngeen ñëw ci kàddu yi tegul fenn teg ay deal ak ay maire di intimider waa village te naan leen yéen a ngi liggéey ci man bu dul woon yow itam ñu liggéey ndax danga leen a yàqal seen liggéey coola am ca njaman duñ ko mus a bàyyi bala drame même bu fekkee dafa am ñu ko ngemb askan wi itam am nañu leen ngemb te biir na ko ni

xel mënu ko nangu te du jàll benn yoon sàkkaa itam la am ci commune bu Nguéniène amul benn explication bu ngeen di jox kenn pour mu comprendre lu dul ngeen bàyyi baykat yi ak seen suuf parce que dañ bëgg dund comme yéen dangeen ngeen bëgg investir mais dem leen fu kenn exploité wul te am na superfice boo xam ne état dong moo koy joxe suñu kilifa yi nag ak lu mën di am war nañu baral jigo yi ci lijjanti coowal suuf yi balaa béy di wees mbuus parce que am na yoo xam ni mënut a jàll tey du jàll ëllëg intimidation bi ñuy def baykat yi moo xam ci côté way takk der moo xam ci soi-disant promoteur soi-disant promoteur bien sûr parce que léegi boo amee sax dis hectares bay fa ñu naan la promoteur agronome ak yomb xanaa kon ñun suñu baay yëpp ay promoteur agronome lañu ba ci ñun ñëpp sax dañuy caaxaan. jël suufu baykat yi jox ko ay këyit utal ko valeur ëllëg ñu doon mu doon seen moomeel ngir ñu sàkkal ko pexe ni mu leen neexee bu ngeen jotee suuf ci kër famille diine famille diine boobu nu mu def ba jot ci suuf sax dafa amoon xemmem teefu di ko bàyyi bàyyi ko na ko delloo seeni ay borom loolu moo jaatu mais denc jox ñeneen mu mujj nekk benn outil de business au détriment de population loolu xel mënu ko nangu coowal suuf li am ca njamaan coowal suuf li am fii ci suul ak dëkk yu ko wër bu ci kilifa yi waxul mun na indi musiba ak mbetteel ndax fàttewuñu coowal suuf la amoon ca wàlloo ci jamono Abdoulaye Wade am nañu yaakaar nag ci ni Bassirou Diomaye Faye dana gaaw lijjanti li am ca njamaan li am ca Malicounda benn nit bu jógee Dakar ñëw indaale ay àndandoowam intimidé xupp napp waa dëkk ba te naan leen promoteur la te naan du sa dellu gannaaw waxu ca xal la ak kay dellu gannaaw ndax askan woowu donte ay kaw-kaw lañ duñu nangu mukk ñu fekk leen ci seen suuf soppi leen yi wala kana boobu du jàll